Dakar ne dort plus ba tey ñu dem xool li nga xam ni moo xewoon euh, ca euh, foofu nga xam ni mooy ca Alizé booy boobu fay way mu ngi tudd booy Kamal ki fa demoon mooy Binta Binta tey fexeel ba bëgguma am ak yow benn problème wan ma sa tatouage ma xool ko ñu doxal ci élément bi nañ dem xool Alizé lan ma fa xewoon ak Binta ay ca nee naa la maa ngi lay nuy di la ziar. xëy naa la tous les la nii lay demee si sa biir émission Dakar na doox pas. ba tax na tey maa ngi nii en Alizé ex Madison Club tey foofu laa ñëw. ñëw seet si benn jeune talent ñu naan ko kan booy Kamal muy xale bu féroce xale ba nga xamante ne dafa mën ambiance. Binta da nga sañse ah waa tam nee naa la mbaa lépp ngi nooy sa côté rek. nooy na lii da laa laal tey manto dëgg neexul nee naa la comme dafa sedd. non non bàyyi di tudd tatouage bi yow tamit nag nee naa la tatouage bi mënoo koo gis ndax dañoo nekk ci hiver nee naa la bu tàngaay jotee di nga am tatouage ba mu neex oh. donc tey damaa laal sama ensemble bu ne muut nee naa la sama mag sama xarit Rokhaya jaañ tey moo génn fii doomu ndeyu Sali Diallo nee ma rakk jëlal nga sañse dem bëggal fans yi comme nuñ koy defee nee naa la damay temp ñu xuus jaar ma laal tapis rouge ñu xool lan la Boy Kamal indi si sa biir émission Dakar ne dort pas voilà Aba nee naa la lu yëngu lu nekk la ko yëngal ko ëpp doole ba tax na nee naa tey Boy Kamal laa seet la non ah nee naa la jeune artiste di soog a door nee naa la li mu gis tey ci Madison dal na sama xel ndax nee la xale bi guichet fermé la laal xam bàyyi la mu nuyu wax yow sëñ bi nuyu naa la euh, maa ngi lay fay di nuyu Aba aussi maa ngi lay fay euh, nan nga gisee sa émission Dakar ne dort pas ah Dakar ne dort moom wax dëgg yàlla émission boo xamante si nii la ñëpp koy suivre en plus euh, moo neex sénégalais yi en plus fi mu télé bi muy daw rek wax dëgg yàlla ñëpp moom la seetaan wax kontaan naa bu baax ci seen teewaay fii. bi mooy sa première sortie. waaw bi mooy sama première soirée fii ci Madison. Ah mhm. lan ngay wax say fans ndax daa mel ni guichet fermé nga laal. waaw xam nga man aw ma lu dul samay fans aw lu dul samay xarit. nee naa sax aw ma xarit fans euh, aw ma fans xarit laa am. wax dëgg yàlla ndaxte lu ma dugg rek ñu duggandoo ceeg man jàpp ci jënd ticket yi. ñu ngi lay souhaiter bonne chance. waaw ah, merci beaucoup. nee li si des yàlla na barkeel. amiin incha allah léegi dama lay bi ñu dugg ambiance du rek. <laughs> Aba ni ma la ko waxee woon nee naa la peccum liir bu neexee nday jaa ca mbagg jaa ba tax na Boy Kamal nee naa la grand frère am bii moo ko jiital dëgg du neex xale bi woote ah mu nekk premier sortem fii fees dell nan nga ko dundee. une très grande satisfaction parce que tey lii la ñuy ñaan euh, un jeune prodige issu d'un quartier boo xamante ne par exemple ils ont l'art de la musique l'art théâtral et cetera la culture dans son ensemble je peux dire donc tey mu ñëw. màggee au sein de nous donc je pense que duñu def lu dul suñu cër ñun ñi nga xamante ne tey ñu ngi dox ci wàllum événementiel mooy ñu pousser ko ànd ak moom ci challenge yi dox ci xaaxaan yi ba incha allah mu mun a produire quelque chose. soxna si nuyu naa la. maa lay fay. nan nga gisee guddi booy Kamal bi tey. oh macha neex na torop. lan nga koy wax en tant que talent mu woote fi fees del. Ah, di ko ñaanal rek affaire bi doon réussite franchement nit ku baax la ñoo bokk koñ mu nekk sama rak et eh, macha am na talent bu baax. ci loo nekk. maa ngi yaa ngi baax. alhamdulilah. yaa ngi yëg ambiance. waaw alhamdulilah ñu ngi. yaa ngi koy yëg bu baax yaa ngi koy yëg bu baax waaw. nga koy wax en tant que jeune talent. nga jàpp taw bàyyi rek xam nga événement bi moom ñu ngi siy liggéey depuis loor nga jàpp taw bàyyi rek incha allah lépp dina baax. cousin la yaa bu xewlee ñun dañu war a teew suñu teewul ñu laaj ñu ko suñu cousin la moo tax ñëw teewal ko def suñu délégation bu mag ñëw teewal ko. lan koy wax en tant que xale li nekk première mu woote fii fees di ko ñaanal lu muy yóotu daal yàlla na ci jot bu baax la. aca ñu ngi woon foofu ca Alizé Apoulaye euh, ak kooku nga xam ni moom mooy euh, Boy Kamal ñu yónni woon fa ki nga xam ni moom mooy euh, Binta